boppam njariñ jox ko te toppul ndigalam lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit boppam njariñ jox ko te toppul ndigalam kenn loo defal nag sab sëriñ am lu na tollu ci njariñ loo defalul nag sab sëriñ boo ko bëggee doo am ab tere tan ñàkkul dara waaye ku saytuwul dara du am ca njaayam ma dara te mat a gëm ku jóg ba dem fi teratang te yóbbu woo dara du bég te sëriñ yi ab teratang du joxe ci ngeen yëfam boo déggatee yow seen ndaw soo xam moo gën sépp ndaw bul daw di jëm ca soosa ngaw dawala daw wuti canam boo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ moo de la jox ay njariñam ku yor yëppam nga yor sa yëf ba noppi làq nag sa yëf di laaj yëppam yaa gën a dof ndegam sa xel dug ak xaram dee sa bopp bu ko nax xamal ni kat la jox lu dul li ngay jëf ak a wax ak dëgg rekk am xoram bul jéem a sax le loo jiwul ngir jéem a sax le loo jiwul am xel mu gàtt la wóotil an jëkka jëndi ay ngërëm koy mooy te bëgg àjjana loolee mu bëgg jomb na loo xam ne lii na ab dafa koy bëgg ndaxam joxoo te bëgg a raw ko ne jëfoo bëgg a am lu bëgg a gën ko ne du mën a am na nga ko xam dëkk bu neene wutal ko na ngir mu dëkk bu nit suubu ngërëm te taxawul dana ca dem yàlla ni lee di ndogalam te kenn du dindi ndogalam ajana toppa ca sawara ak moye ca ñaari barab yi boo ci jëm di soobu am ngërëm ak lar na bay rek ku sasam te bañ a soññi ab añam jekki di soññi ab añam te bañ a bay gàcceema tam bayala bay te muñ a muñ ngir ñi ngi lay toggali añ baykat bu ñuy toggali añ ndalit te woo rek mbayam lu dul ak bàyyiku ak soññi boppam waru ko yow jébbulul te bàyyiku nga sëb sëriñ aw ndigalam